ñu bëri daal di wax ne inéligibilité am jëm nag ci élection présidentielle ñu dëgmal euh, maanaam avenir am daal euh, jamono ji nekk na en pointé comme ni ko benn yéen kay waxee El Hadj Mansour waaw xam nga xam nga décision Al Amine bu bu justice kenn du ko kenn du ko commenté euh, xanaa xool yeneen opportunité yoo xam ni Ousmane Sonko am na ko peut-être ci wàllu yoon pour def appel cassation pour ñu dakkal li ko ci cour d'appel démb boo xoolee da nga xam ne bis bu bis bu xawoon a compliqué la ci diggante àttekat yi xaw a poser aussi euh, problème ci demande njàlbeen bi demande avocat yu Ousmane Sonko ci euh, ki nga xam ni moo waroon a saytu euh, dossier bi ci ak njàlbeen ba finalement gis nga ci loxo yi mu mujj entre temps ci façon bu gaaw ñu partagé photo ki nga xam moom moo doo àtte c'est-à-dire Sénégal dafa toll beneen dimension ci wàllu menace boo xamante ni bii est-ce que responsabilité nguur wala responsabilité sénégalais bi ci boppam parce que magistrat bi nga xam ni moom moo jël. décision bi démb Birahim Touré mi nga xam ni liggéey na ak moom fukki at ak juróom-benn xam ko lool magistrat bi laa gën a xam ko Birahim ci ci honnêteté ci jubam ci dëggoom malgré ci début yooyu gis ñu partagé ay photos koo xam ni papa mu xaddam la ma xam ci moom lu bëree bëri c'est-à-dire que sénégalais ñoo egg foo xam ne à chaque fois lu wadd ci kaw càlla càlla yoonum nekkul ci kooku nu mu mel. parce que daf koy taxé rek comme façon bi nga xam moom la ñu décrédibiliser secteur boobu mais euh, gis naa ni fii comportement boobu changé wul Sénégal dina yéex a normal ci yenn décision yu ñuy jël ci wàllu justice te lu mat a bàyyi xel la parce que am na ñoo xam ne bi amul benn dossier boo xam ne mun naa tax changer ñoom seen crédibilité. mais est-ce que lu ñu gis Mansour la peut-être wala lu ñenn ñu jàpp muy instant bi lu ñu taxaw mooy fexe ba Ousmane Sonko du bokk ci ci élection yi. moom moom mais interprétation boobu laa la wax ni loolu côté politique la te côté politique boobu moom moo continuer ci veille bi la Ousmane Sonko côté politique moo tax ma ñu ma wuy ji mais mënoo mënoo mënoo sàkku jiite am réew suba doye dal justice ci démb bi. donc politique moo tax mu ne du wuy ji politique moo tax riposte bu Barthélemy Diaz bi pratiquement boo seetee dañu dem ba ñoom ñaar dañu mujj wër sax procès bi ci boppam nekk ci yeneen box yoo xam ni yitteelatul sax procès bi yitteelatul sax sénégalais mais seen intérêt boppi politique la bu jëm ci lan ci li ma doon wax ci njëlbéen ci coalition yi ak idée idéologie yi nga xam ne ñoom ñoo composé ci biir coalition yi ñu ngi commencé di feeñ ñu ngi commencé di fasante ay sikkim ñu ngi commencé di dóorante en fait moo tax foog ñu delluwaat ci cosaanu politique gu Sénégal parti di am ay formation yu dëgër gis nga politique gu émotionnel foog ñu jëlee ko Sénégal fi fii ak Birahim xoolul fi ma xool du ñu mën a bokk benn table du ñu mën a bokk benn débat du ñu mën di échanger dañuy saagante dañuy dóorante politique émotionnel boobu foog mu jóge Sénégal parce que loolu moo ñu transformé ñun ñëpp ay ennemis léegi amatul échanger ci wàllu idée amatul échange ci wàllu wuute ci benn point mais saagante ndey saagante ndey wax naka sul noonu te loolu ci ñaari côté yëpp la dañuy da ngay gis euh, ay leader yu recruter ay nit di leen fay teg leen ci benn salon jox leen ay machine uniquement pour ñuy saaga uniquement pour ñuy défendre seen leader boobu doonte woon xam nañ seen leader boobu du tous loolu gis nañu ko fi Birahim mun na seddali même am na fi am na ci Sénégal mais loolu dangay dem ba yow muy jàngat li daloon làmb ji moo dal léegi politique da ngay dem ba dootoo boo amul courage war leen ni leen man kippewuma leen quoi dootoo sax am place bu baax pour mën a commenter mais décision justice yaa xëyti mu laa ne ci réew mu normal bu am démocratie kenn du ko commenter mais bu dee côté côté politique na mun nañu commenter ci lan mooy jubluwaayu parce que bi waaye maa ngi ko dégg sànq bi muy expliqué xaw ma L36 wala L30 L30 euh, nga xool bu fekkee da nga da nga méngaat le yi nga xam ne termes yi nga xam moom lañ utiliser condamné ko Ousmane Sonko amul benn yoon fu moo yooyu feeñe ci télé yi nit ki mën a def pour ñu topp ko ba L39 kepp ko ba du mën a bokk ci élection maanaam bu ñu la daanee xëy na nag boo ko delloo ci diggante 3 mois ba 6 mois mun na bañ a bokk ci élection mais bu fekkee dafa def jëf telle action lii ñu koy toppee jëf yooyu amul benn boo xam ne li ñu ñuy toppatee Ousmane Sonko feeñ ci biir jëf yooyu ci code électoral donc boo tax am na ñenn ñu wax ni ba léegi amul lu ko mën a tee doon candidat mais am na jàpp ni ba tey mënut a nekk candidat loolu beneen beneen bataille la mais. dañu buñ ci eggee ci benn benn boo xam ne Sénégal bi ci boppam du sañ a joxe xalaatam mais dafay poser problème débat bi dafay continuer Ousmane Sonko nekk candidat ñàkk nekk candidat élection présidentielle dana am te li wér te wóor mooy Ousmane Sonko bu nekkul candidat mille dix neuf un deux mille yeneen élection dafay nekkaat candidat c'est-à-dire xoolal diggante deux mille dix neuf ak léegi ñaataat la comme bëgg démb. Mm-hmm. amul lu jar indi problème wala amul lu jar yuuxu victoire. bu fekkee da nga def politique boo xam ne normalul mënoo fexe ba euh, jamono du la dab dabaatal fi may jeexale mooy euh, dafa am lu ëpp solo procès Ousmane sonk boo xam ne même ñun journaliste yëpp dañu tombé ci piège boobu muy euh, laata Ousmane sonk ak mi Ousmane Sonko dañu yuuxu benn xaalis bu Sénégal yi moomoon chaque jour dama koy rappelé dama ne Ousmane Sonko bu fekkee dafa diffamé Mame Mbaye Niang am na droit setal deram ak honneur mais xaalis boobu nga xamante ni Mame Mbaye Niang ci boppam nangu na ni am na ci gestion bi njuumte gu ci am ba tax mu demande nañu def audite après audit bi feeñal ni am na ay jalgati yoo xam ne am na ci mais jalgati yooyu duñ ci teg conco xaalis boobu Sénégal yi ñoo ko moom te ñu wax ay emplois de jeunes léegi léegi léegi léegi dañuy dañuy tuumaal ki wax sàccee yi et après ki sàcc li mu lekk dafay rees yan loxo la xaalis boobu seeye ba liñ ci bëggoon a réaliser mënul nekk foofu la Sénégal yi toog léegi di interpeller tey demander ak kan mooy oser ci langue politique yi. pour porter plainte contre képp koo xam ni tax nga ci xaalis boobu noonu. Mm-hmm. maintenant xaalisu Covid 19 bi détournement bu dul jeex gëmm nañu lépp ndax procès Mame Mbaye Niang procès diffamation kañ la mos a amee nii doole Sénégal. Mm-hmm. voilà problème euh, Birahim Mansour mi ngi koy wax sànq ci waa Yewwi Askan fi mu ne ni ngi di gis feewaloo ci